auzu billaahi mina seytaani rajiim assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu yéen bokki jullit yi bokki taalib yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare kilifa kër gi di sëñ Cheikh Bayla Diop ak sëñ Masamba Diop kenn gën koo xam ci Cheikh Bàcc ñu leen di siyaare di siyaare njobootu sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan gépp magi kër gi ak goney kër gi ñëpp ak soxna yi ñu di leen xamal ne dañoo woote woon fii ngir lislaam ndax ay nit bu ñu dëkkee rawatini jullit rawatina ay taalibe war nañu sax weer wu ñu daje di waxtaan kon nag ñu defoon ci sunu xalaatu bopp ne bésub xeet bi ñetteel bi fan bi nu daje feek bokk yu góor yi ak yu jigéen yi waxtaan ak ñoom ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Serigne Touba Xaadimul Xadim ma waxtaanoon teeg sëñ Cheikh Mbacke Bousso mii ibnu sëñ Fallou Bousso ibnu sëñ cumbuleen bu so ibnu sëñ musoo bi ne ko nu waxtaan ci maa moom ba tànn ñetti tem ak leneen lu ci topp benn bu jëkk bi moo di diggante nit ki ak ki way juróom ak ju jox seen diggante ak ak way jur ci ay doomam ak ak soxna ak borom këram waaye nag àqi borom kër ak soxnaam ndax kenn ku ne am nga àq ci sa morom ak àqi dëkkandoo ñu ne loolu de am na solo ma tàggu ci waxtaan ceeg sëñ Cheikh Bayla mu ne ma loolu rafet naa da ci eggal ci sëñ Massamba sëñ Bàcc Cheikh Cheikh Bàcc wax ko ko ma wax ko ko mu ne ma lool day lu ñu war di waxtaane la jamono bu ne lu rafet la lu mat di waxtaane ra moo tax nag ñu dajale woon fi bokk julli ak bokk taalibe yi bëgg ah sëñ sëñ Cheikh Mbacke ñu waxtaane yéen thème sax naam baax na ci ñëpp waaye la ca gën a gën a ñor dëgg dëgg dëgg mooy soxna yi ca gis nga ko ni ñu xaw a yeexe dikk dañuy nekk ci kër gay kuuj kuuj yi rek mel ne ku jëm faneen loolu moo tax ne daañu wuy si waaye nag ñoom seen mbir moom sëñ Seex booy boo tàmbali rek xëy na lu leen ci lépp lu leen ci raw daañ ko mën a dabal ci internet bi ndax sëñ Murtala ngi fii di ko jël bismillah aousu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wa ala alihi wa ashaabihi wa aswaajihi wa zurriyatihi ajmain wa man bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Muhammadul Muntaxa di ko ñaanal suñ boroom guddal fanam te may ko ak wér di siyaare it mbooleem ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci ak ronam ak mbooleem taalibe yépp di siyaare it sëriñ Cheikh mi nga xam ne ni ko sëñ Baye ba da waxe léegi sëñ Cheikh Diop sëñ Cheikh Baye laa Diop mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ eh, Bakki Diop ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér ak mboolem ay rakkam ak sëñ Cheikh Bàcci ak mboolem njaboot gi di siyaare it mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew waaye di jiital ci siyaar bi sëriñ Baye Bada mi ndax daa baax rek te fonk nu waaye lii mënoon naa xool ñeneen ñu ñu ko gën a man mu jox leen ko <laughs> waaye bi ma woowee waxtaan ceeg man ne ma dama bëggoon kat nga defal ñu fa ay kàddu yu néew wax dëgg yàlla mu ne su koo gàntu ndax moom day suñu waajur di suñu xaritu waajur waaye ñun ñi du suñu xarit jàppe ñu doom jàppe ñu xarit jàppe ñu lépp moo tax lépp lu ñu sant danañ góor góorgóorlu def sa suñu kem kàttan moom it ñu koy ñaanal bu baax suñ borom guddal aw fanam lool te may ko ak wér te barkeel njaboot gi yëpp ndeysaan di siyaareen mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi ñëpp gaa yu baax yi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di wax na it comme ni mu ko waxee rek bi mu ma ko waxee dana ma dama bëggoon ñu waxtaan ci lu jëm ci wàllu dëkkandoo waaye it diggante soxna ak boroom këram ak diggante it boroom kër ak soxnaam ak waajur ak doom ak doom ak waajur ma ne ko xam naa ne yooyu nga xam ne moom nga tànn benn bu ci nekk rek gudd na gudd goo xam ne boo ko bëggoon a def a waxtaan du xaj ci ak ngoon moo tax leen lu nekk rek des cay laal moom xëy na bu ñëwee ci ay kàddoom yu leer dana ko gën a leeral waaye ñu njëkkanteeg rek waxtu wi di siyaar sëñ Cheikh aw Balla Fall mi ma fi àndal moom it di ko jàmbaare di ko bëgg xam-xam nga xam ne yitteem yëpp maanaam ci xam-xam rek lay dox ndeysaan sëñ Baye ma Guèye mais sama xarit waaw nit ku bëgg lu baax waaw gaa yu baax yëpp ñu ngi leen di siyaar di wax ne lii nga xam ne moom lañ bëgg a njëkk ci waxtaan wi muy lu jëm ci wàllu dëkkandoo maanaam day lu am solo lool loo xam ne nii kenn ku nekk. boo woote woon ne ab jullit nga war nga koo jël def ko muy say jikko ndax ab jullit maanaam dafa am loo xam ne nii mooy ne daje ci moom mu dooram a mat doon ab jullit dëgg dëgg bi nga xam ne moom lañ bëgg comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne al imaanu mahrifatu bil xalbi wa xawlu bi lisaan wa amalu bil arkaan nee na ngëm yàlla kat doonu ne danga koy wax rek ci saw làmmiñ te doo ko jëfe doo ko fas ci sab xol boo xoolee jamono yi ñu toll nag day mel ni wax ne gëm naa yàlla moo bari gëm naa yonante bi moo bari gëm naa Sëriñ moo bari waaye la nga xam ne nii mooy dëgg dëgg ni am murit war a doxee dëgg dëgg ni ab jullit war a doxee des na lool ci jullit ñi moo xam mooy ci wax moo xam mooy ci jëf waaye koo ne doob jullit mu mer kon loolu bokk na ci li tax ñu bëgg a soññante ci lii nga xam ne nii moom lañu sëriñ bi waxtaan loo bu njëkkee tàmbulee rek ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu dëkkandoo dëkkandoo day lu am solo lool loo xam ne nii yàlla suñ borom subhaanahu wa fonk na ko lool yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom it fonk ko lool bari lum ci wax lool ba nit ki bu nekkee ab jullit te fonkut ay dëkkandoom walla doxewut doxin wi war ci ñoom ak lu mu mën a jaamu jaamu boroomam ak lu mu def def ci lu baax loola day manqué lu baree baree bari kon loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax dëkkandoo mooy nit ki ki nga xam ne bokk na ak moom kër mën naa tàmbale ci loolu wala nit ki ki mu bokkalub koñ wala ki mu bokkalub dëkk wala ki mu bokkalum réew wala sax ki mu bokkal jamono nga xam ne jamono ju nekk yàlla suñu borom mën naa dogal ñu daje ñoom ñaar saa soo xamee ne nit kii man ngeen a xëy daje rek seen jëmm yi daje rek kooku mën nga ko jàppe sa dëkkandoo waaye ki ci gën a foor nag mooy ki nga dëkkal ci biir kër gi ak ki nga dëkkal ci koñ bi ndax li yàlla suñ borom waxoon ne li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum inna xalaqnaakum min sakarin wa unsa wa jaalnaakum somoban wa xawaila li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum jooju yàlla di wax ne yéen nit ñi dama leen a bind ngeen doon ay nit ginnaaw ba ma leen bindee ngeen doon ay nit ba pare ma def leen ngeen di ay giir maanaam di ay xeet di ay askan waaye di ay peuple di ay réew waaye loolu lépp nag li tax ma def ko man sama borom mooy bëgg ngeen xamante li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum waaye ki gën ci yéen fa yàlla mooy gën a ragal yàlla ci yéen kon yàlla mi ñu boole ci ab koñ boole ñu ci ak kër boole ñu ci ab dëkk boole ñu ngëm-ngëm bëgg nañu bennoo jaxasoo ànd doon benn yàlla suñ borom wax ci alquran ne wa'budu llaha wala tusiku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bisil wal yataame wal masakin wal jaari sil qurba wal jaari junub dafa fonk wàllu dëkkandoo ba nga xam ne dafa wax ne na nga jaamu ca na nga jaamu sa boroom te bul ko bokkaaleeg dara ginnaaw boo xamee ne moom yàlla wax na ne lépp lu nit ki def ci ay bàkkaar mën naa ko koo jéggal ba mu des bokkaale inna laa la yaxfiru an yusraka bi wa yaxfiru ma doona zalika liman yasaawu wa man yusrik billahi faqad dalla dalalan baida faqad iftara isman aziman maanaam wax na ñaar képp koo xam ni bokkaale nga yàlla suñ borom nee na mën naa laa jéggal lépp ba mu des bokkaale bokkaale mooy moom jëmm jëm jëmmi suñ borom ja ngay jël leneen di ko dendale wala ngay jël palaasu leneen loo xam ne sore naag yàlla suñu borom nga koy dende loolu yàlla mi nga xam ne nag moo bañ loolu ba ne du ko jéggale moom ci boppam saa su tuddee ne jaamu leen ma te bu leen ma bokkaaleek dara ñaare bu ca tegee ñaari waajur ñu rafetal jëme ci ñoom danañ ci ñëw moom ci kanam day daal di ñëw ci rafetal jëme ci sa wàlluk dëkkandoo kon dëkkandoo lu am solo loo xam ne suñ borom fonk na ko lool boo xoolee yonent bi sallallahu wax na benn hadis boo xam ne nii nit ki bu ko dee jëfe fu mu mën a dëkk ñam dëkkal melokaanu ñu mën a yor dana jubook ñoom te du ma am ñoom benn jafe-jafe léeg nga gis nit koo xam ne day nekk ci kër wala ci ab koñ mel melokaan woo xam ne ñëpp dañ koy moytu ñëpp dañ koy ragal ñëpp dañ koy daw ngir aw ayam nga gis kenn koo xam ne day xaritoog moom ñu naan ko yow de kii yow rek la mën a defal fekk kooko jëpp ku ci jikkoom waaye ci jikkoy boppam moom la ko jàppe moo tax yonente bi dañoo jàngal jàng maam teg ñu ci yoon woo xam ne xam xam nga laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ji yàlla wax nga xam ne jël na koo xam ni ku mat roy teef la teg ko suñ kanam ñu war koo roy suñ ko royoon rek wala ñu maanaam ñu xool ñu mel ne ñoom Serigne Touba nga xam ne léppam yonente bi la sallallahu taala alayhi wa sallam ñu roy leen kon benn jafe-jafe du am ci biir jullit ñi waaye jafe-jafe yi am yëpp ñàkk roy ñooñu la yonente boobu dafa wax ay jullit dafa am xàq ju dox seen diggante rawatina ay dëkkandoo dafa wax ne xaqul muslim alal muslim surtout nee na àq jullit ak moroomam nee na juróom-benn la juróom-benn yooyu yi may bëgg a lim kenn ku nekk war naa xam ne lu mu war a jël la jikkowoo ko bu ko defee ku mu mën a dëkkal lu mu bari bari ay sikk kooko dana dana dana jàpp ku ne ba mu des moom ba ci njëkk mooy isaa laqitu fa salim alayhi yonente bi salaa nee na nit ki saa soo xamee ne daje nga ak sa mbokkum jullit na nga ko nuyu kon nuyoo àq la joo xam ne dafa dox ci diggante nit ki ak moroomam boo xoolee ñuy ñaawoo fi njëkk a tàmbalee dama damaa romb nuyuwuma maneen ma romb ko ma kon nit ki saa soo xamee ne mi ngi romb mbokkum jullitam moo xam mu mere ko moo xam ñu xeex léegi lu mën a am moom saa su ko rombee nuyu ko rek kooku bu yàggee ak lu mu bari bari ay sikk dana ne ah kii kat mënatuma koo wax dara ndax saa su ma rombee nuyu ma te nuyoo asalaamaaleykum yàlla na jàmm nekk ci yow képp koo koy wax suba gu jot lu mu bari bari sikk bu yàggee mu soppeeku waaye nuyoo nag soo ko defee nit ki àq la ju sa digganteek moom mën nga koo bañ a def su la neexee waaye nag def ko moo gën ndax da nga ciy amu yiw waaye suñ la xasee nuyu soo fayut da ngay am bàkkaar waaye saa on yutum bi tax yetin fan yow bi ahsana mina aw rudduha ji yàlla wax ne bu ñu leen nuyoo na ngeen fay fayin wa gën a rafet bu ngeen ko munut ngeen fayee comme niñ leen nuyoo bu la nit ne asalaamaaleykum ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu soo ko mënut nga ne ko waaleykum salaam kon nuyoo moom lu nu sopp la àq la ji dox diggante jullit bi ak moroomam sunna la waaye fay moom farata la waaw waaw ah, comme ni mu ko waxee nii maanaam nuyoo dees koo war di bàyyi xel doo romb ne rek salaamaaleykum da nga naan asalaamaaleykum asalaamu jàmm aleykum yàlla nekk ci yéen kon loolu ñu bàyyi ko xel moom la ma sëñ bàyyi meng doon doon doon doon fàttali pour ma fàttali ko nit ñi nga xam ne baat yu bari dañ koy jëfandikoo ba ba ba nen ko war a waxee sax dootuñ ko ko waxee di ko yàq te loo yàq ci waxi ci ci ci ci arab bi rek mën na soppi leneen lu bokkut ak li nga ci jublu mu ci teg ne way saa daanaka fa nit ki soo nekkee ci koñ dëkk ak ay nit saa soo xamee ne woo nañ la nanga wuy ji waaw waaye da ngay gis koñ boo xam ne nit day xewle woote kenn du ñëw wala ñu baree bari di fayantoo naan man kat su xewlee du ñëw suma ma xewlee du dem loolu warut ci diggante jullit ak mbokkam istajibu lillahi wal rasuli isa daakum li la yàlla suñ borom wax nee na wuy ji leen woote yàlla bu ñu leen woowee ci lu leen woote bi yàlla ak yonentam bu ñu leen woowee ci lu leen di dundal te képp koo xam ne dajale nga mbooloo di fa def lu baax wala nga fay waxtaanee lu baax loola luy dundal woote yàlla la ndax luy dundal nit la ku gëm yàlla ci agro am kon julit bi war na saa su dajeeg mbokkum julitam su ko su ko su ko nuyoo mu fay ko waaye war na di nuyoo waaye su ko woowee war na ko wujji way sa tansaaka fansahu maanaam saa soo xamee ne war nga koo laabire nga laabire ko loolu lu tumuranke la ci jamono jamono jii léegi gone yu baree baree bari ci seen doxalin ak ni ñu doxe ak ni ñu soppi ko bu njëkk mag da daa fekk gone yu def lu jaaduwul mu jàpp gone yu dóor bu ca dóor waree bu ca yedd waree mu def ko bu demee ca kër ka nga xam ne mooy seeni waajur lam koy wax mooy boo leen gisatee ñu koy def nanga nga dolli comme lu raw li nga leen def waaye léegi boo fekkoon gone guy def lu bon fii soo ko dóoree ay waajuram mën nañ laa yóbbu police wala ñu teg ñu ñu ñu ñu wax la wax joo xam ne yow ëllëg képp koo fekk muy def lu bon da koy bàyyi te loolu ndigal la ci bépp jullit bu mu gis muy gis def lu bon man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax boo gisee nit ki di def lu bon yow jullit bi diini ji lu ngeen ci gis lu jaaduwut dindi ko ci sa loxo boo ko munut nga dindi ko ci saw làmmiñ boo ko munut nga naqarlu ko ci sa xol kon nit ki bu gisee ab jullit di dox yoon woo xam ne boo ko teg yoon ba mu war a jaar muy ab dëkkandoom war na koo jéem a jubbanti loola mooy warteefam waaye jamono yàqu léegi ba nit ñi ku laal seen njaboot ñu dal sa kaw am na ñoo xam ne sax seen njabootuk bopp ci boppam la ñuy def ci lu bon dañ ko xam te ñemewuñu leen koo tere waaye loolu ëllëg responsabilité bu rëy la ci kanamu suñu borom ndax kullukum raahin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi wal amiru raahin wa rajul raahin ala ahli yi wal mal'atu raa'iyatun ala bayti zawjiha wa di yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ci yéen ab sàmm la kenn ku nekk la la sàmm ëllëg dana ci kanam boromam ñu ne ko lii ñu la booleeloon lan lu tax sàmmoo ko woon mu ne buur bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi mën a yilif ñëpp yilif ñëpp mën a digle ñu def mu mën a tere ñu bàyyi kooku lépp lu ñu def ci dëkk bi comme suñ mu taxaa nii mu ko defee nga xam ne nii dafa jël ay Baay Faal teg leen ci dëkk bi ñuy tere li yàlla li yàlla bañ ak li yonente bañ ak li Sëriñ Tuubaa bañ loolu day lu war waaye su ko defutoon ëllëg yowmal xiyaam mën naa dajeeg borom ñu ne ko lii kat amoon nga doole yi dindi ko lu tee woon nga dindi ko kon loolu dafa war bépp buur boo xam ne nii da ngaa ay nit képp koo xam ne nii dangaa am sa kër lépp loo xam ne nii lu fa am la ak yàqute nga koy gis di teg sa bët ab sàmm nga ci loolu nga jéem koo dindi te bañ cee bañ dara boo xoolee kilifa yu bari léegi maam waajur yi yàqute day am seen biir kër ñu ñu koy tere di ko tere dem ba mujj taay daal daane ah man daal bàyyi naa lu leen neex def te loolu musiba naaru lay dëgg la lu yàqute gi bari bari lu mu jegee jegee lu mu tartar yow del tere rek boo xësee tere rek wàcc nga mu daal ne waaye soxna si nga xam ne borom këram da koo bàyyi ci biir këram dem liggéey wala mu nekk ci ay yitteem njaboot ga fa nekk moo leen war a toppatoo moo leen war a yar moo leen war a teg ci yoon kon loolu yéen soxna yi ngeen koy bàyyi xel baax a baax ginnaaw boobu mu ne wa isaata sa famidallaahu fa samitu mu daal ne nit ki bokk na ci àq jullit ak moroomam su tis yoolee ne alhamdulillah nga ne ko yarhamukallah bu ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla nga ne ko yarhamukallah yàlla na la yàlla yërëm mooy mën la yaxfir laahu lana walakum wala yahdikumullah kon loolu it àq la joo xam ne nit ki bu koy jëfandikoo diggante moom ak ay dëkkandoom jafe-jafe du mas a am waaye wa isa mari dafa mu nit ki bu fekkee ne dafa am dëkkandoo bu bu mu dëkkal mu dem ba mu yàgg gisatul dëkkandoo boobu wala mu dëkk ak moom mu feebar ak lu mu ko lu mu doon lu mu meroo woon moom meroo woon moom war naa jug dox ay jéego seeti ko yóbbaale loo xam ne nii benn moom lay soxla ci lekk wala mu yóbbaale loo xam ne moom lay soxla ngir jënd ordonnance faju loolu nit ki bu ko doxee ci diggante moom ak ay dëkkandoom jafe-jafe du mas a am te loolu ndigalul yàlla la waaye way sa maata fat dong bu faatoo mu toppi ko nit ki saa su nekkee ci bërëb ba mbokkam jiitu ko war naa toppi mbokkam moom yi kon juróom benn yi nga xam ne moom la yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax képp ku koy jëfe ak nit koo xam ne da ngeen a dëkk mu bari ay sikk lool comme ni ko borom téere bay wax ne wa in bulita bi sax sin la xalaa wala fa kun ka naka lam tasma walam yaquli nee na bu fekkee ne da ngaa dëkk ak nit ko xam ne dafa bari ay sikk bari ay ay bari histoire fu mu toll ma ngay xeex di xuloo di wax wax ju ñaaw nee na boo bëggee mucc ci moom boo dendeek moom muy wax wax ju ñaaw jëme ci na mel ne waxut waaye yow mi muy waxal danga mel ne amoo ay nopp loolu moo lay musal bu ko defee ñaan ñaan da ngaa ñàkk fulla ak da ngaa ñàkk fayda fekk yow da ngay jëfe yàlla ak yonent bi ak kon loolu ñu bàyyi ko xel kon ñett yooyu nuyoo bul ko yamale ci ki la bëgg ak ki bañ koo gis def ko ko buñ la woowee ak buñ la woowut nga yëg ne lu baax xew na ci koñ bi demal wuy ji boo demee nit koo xam ni dala dalaa safoowut ba yëgalu la bisam nga ŋàbb sa xaalis ñëw jox ko ne ko bis bi kat dama koo yëg waaye da ngay sama waaye di sama dëkkandoo ma ñëw teew kooko bis booba la la mañeel di jug ci xolam jëme ci yow waaye bu bu bu matee laabire nga gis muy def loo xam ne jaaduwut da ngaa war a taxaw ne ko lii kat jaaduwut nangam nangam loolu koo koy def bu demee ba xam ne lu baax rek nga koy digal dana soppeeku. waaye bu tisoolee nga ñaanal ko bu feebaree nga seet ko bu faatoo nga bu faatoo nga toppi ko ñaanal ko ba jébbal ko boromam. mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne al mu'minu allasi yuxaalitu naasa wa yasbiru ala asawum xayrun min allasi laa yuxaalitu naasa walla yasbiru ala asawum nee na aji gëm ji nga xam ne ki nga xam dafa nekk ci koñ gëm yàlla lool ma ngay julli di woor di lépp lu baax mi ngi koy def waaye nag catam mooy munta jaxasoog nit ñi te munta muñ seeni lor nee na kooku day def na lu baax waaye mënoon naa gën a baax ci moom ni mu doon gën a baaxe ci moom mooy mu muy def lu baax loolu yi di jàpp di julli di woor di def lu baax waaye mu jaxasook nit ñi ba pare di muñ seeni lor da yëg ne ki nga xam ne nii taamuwuñ muy jaxasook nit ñi fu mu fekkee nit ñi toog mu ñëw toog seen biir nit ñi duñ ko gëme te boo xoolee li li li li li euh, maam euh, hakim bi wax naan ahsin ilan naasi tastabidu xulubuhum nee na rafetalal jëme ci nit ñi boo ko defee da ngay jaamuloo seeni xol fi ne nit ñi booy rafetal jëme ci ñoom day dem ba mu yàgg dañ lay bëgg-bëgg goo xam ne day mel ne dañ lay jaamu foo toog nit ñi ñëw wër la foo dem nit ñi ñëw wër la moo xam muy donga buy jàng ci daara da koy da koy dal élève buy jàng ci école da koy dal soxna suy sëy si kër da koy dal ab sëriñ it da koy dal man ngaa gis dongo buy jàng ci daara fu mu toog dongo yu bari ñëw ñëw ci moom ngir safoo ko élève buy jàng noonu soxna suy sëy ci kër ñëpp xaritoog moom fu mu toog ñëpp ca moom la ñuy ñëw sëriñ boo xam ne fu mu toog ñëpp dañuy bëgg a toog ak moom loolu li ko waral mooy rafetal ngay rafetal jëme ci ñoom mooy mujj day mel na ñoom dañ lay jaamu te jaamuwuñ la waaye rafetal gaa kon jaxasoog jaxasoog nit ñi ba pare di muñ seeni lor boole koog jaamu yàlla moo gën jaxas moo gën ngay jaamu yàlla chaque jour te nanguwoo jaxasoog kenn te képp ku def aw njuumte lu mu a doon nga attaqué ko xulóog moom wax ko lu ñaaw loolu kon nañ koy wattandiku bu baax a baax ba tey ci wàllu dëkkandoo yonente wax nañ ci ab hadis ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yusi jaarahoo nee na képp ku gëm yàlla gëm bisu pénc du lor ay dëkkandoom lor say dëkkandoo nag moo bokk na ci li ci gën a fés mooy mbedd mi mbeddum buura tey jii ci dëkkandoo yi dangay gis ñoo xam ne dañuy ñëw ba ci digg mbedd mi nit ñiy jaar ñu def fa loo xam ne warut soo waxee ñu ne ah lii kan ñëpp a ko bokk damay wax ne sax ba ci lu baax lu baax fi ne nii li muy baax baax baax su ñoo koo def ci koñ boo xam ne ñëpp fa bokk nekk comme moo joxe misaal rek boo ñëwoon ba ci digg mbedd mii nga baas fi baas boo xam ne yaa ngi war a xewle suba ak màggal wala nga war a xewle ab conférence baas fi lu tollook ñetti fan oto yi ku ñëw du mën a jàll di teggi nit ñi ku ñëw di du mën a jàll tegg na nga xam ne yow yaa ngi def lu baax waaye yaa ngi yaa ngi yaa ngi ciy boole waale luñ la digal maanaam wala nga taal say rajo guddi gi nit ñi bëgg nelaw nga yokk ko gaa yi di jàng moo xam ñuy jàng alxuraan moo xam ñuy jàng xasida ndax booy jàng alxuraan dañuy bëgg nit ñi noppi teewloo am na ñoo xam duñ am duñ mën a def loolu bu dee xasida it maanaam am na ñoo xam ne jàng gi nga koy jàng ñoo la ko gën a bëgg waaye xëy na ñoom dañoo war a xëy liggéey wala ñu war a xëy am lu ñu def bu boo ko dee jàng càpp ko yooyu yëpp am na ay àq yu ndox ci diggante nit ñi yoo xam nit ñi dañ koy def te jàpp ne rek lu baax la ñuy def te loolu loolu war a xoolaat la maanaam ndax ki koy def bu ko xamoon dana ko defe neen tey jii boo amee bis boo bàyyee ba guddi nga takk rajo yi wàññi ko ba mu ci baas bi ñi di diglu loola moo ëpp yu ci nga taal ko ñeneen di ci déranger wu te bëgguñ koo dégg ak lu mu baax baax mbir mi ca takk soxna lay tàmbalee bu dee góor ñi dafa wax ne yéen ñi nga xam ne ay waxambaane ngeen man istataa minkumul baa sa yatasawaj maanaam képp koo xam ni am nga baa na nga takk foofu nag lañuy taxaw mooy góor ñu baree baree bare bari bu ñu takk soxna dañoo yaakaar ne takk soxna moom yor nga xaalis boo ko yore yor nga néeg boo ko wàccee man nga koo dëkk dëkkoo loolu loolu lu am solo la ci soxna waaye nga ëpp nga am nga am xel moo ko yore it amuk dal bu la tooñee nga mën koo jéggal bu ngeen àndee la nga xam ne moom moom nga ko moom nga ko war a digal nga xam ko di ko ko digal di xool yoon wi ngay jaar moom ba mu ba jub loolu dafa am solo lool ci borom kër ak sonaam te góor ñu bari duñ ko ci boole lépp ci góor ñi mën nañoo mm, yor luñ takke soxna mën nañoo am fuñ ko wàcce man koo dëkkoo waaye bu yooyu xësee am ñu ci bari amatuñ soxla ci seeni soxna dama koy faral di wax sax lu ci baree bari góor ñu baree bari suñ takkee soxna ba xaw a am ak moom ab diir soo toogeek ñoom seen soxna toog yow sa yaram day daw ba say rongoñ day bëgg a tuuru ndax dangay gis ñoo xam ne gëdd rek la ñuy def gëdd bu seen soxna dee laaj ñu gëdd bu ñëwee di wax ak ñoom ñu gëdd maanaam am na ci ñoo xam ne sax ñi gën a doy waar nag mooy ñi àgg ci di saaga bay dóor loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax xam ne loolu boo ko dee def yow la la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digle ngir nga man nga mën a takk soxna yow ëggagoo ca te baree bari loolu dañ koo manqué kon loolu nañ ko bàyyi xel arrijaalu xawaamun ala nisaay yàlla suñu borom nee nag góor ñi ñooy ndëgër laayu jigéen jigéen lu mën a am moo xam muy alal ju bari wala bokk ci askan wu foor wala taar lu mu mën a doon comme ni ko yonente bi limee woon ne mën ngaa takk ci soxna tunkawul mara li arbahin li maaliha wali asabiha wali jamaaliha wali diiniha daan ne mën ngaa takk soxna ci ab taar mën ngaa takk soxna ci askan wu baax mën ngaa takk soxna ci su am alal mën ngaa takk soxna su am diini waaye nag li gën mooy wali diiniha ndax fasfar bi seeti diin da caa teg ne tànnal borom diini kon ñett yooyu yëpp loo ci am lum foor foor foor bu la suñ borom booleek boroom kër borom kër ba nu mën a mel bu mu tax nga xeeb ko bu mu tax nga jàpp ne ëpp na la bu mu tax nga jàpp ne kii kat maa ko féete kaw ba tax nga war a jëf loo xam ni du du ndigalam ndax ñoom kat hunna libaasun lakum wa antum libaasun na ñoom ñooy seen mbalaanum surta ñooy seen kiiraay waaye yéen yéenay seen mbalaanum surta yeneen seen kiiraay te ni ko suñ boroom waxee ne góor buy takk soxna soxna si war na koo jariñ lii maanaam léeg nga gis góor goo xam ne damay damay wax ne euh, sëriñ bi maa ngi jégglu sax waaye defoon naa fi aw way woo xam ne ci wàllu diggante góor ak jigéen bi may gën a doon ndaw booba dencaguma ma ma ma aw bayit woo xam ne dama ko ciy faral di wax di jégglu sëñ bi mu ma ne woon nit ku xuloo kami bëgg lu mu jekk-jekk du ko gis waaye ki àndul ak dara mbëggeel ga day dalal xelam loolu li ma ci woon mooy nit président sax président bi yor réew mi soxna si nga xam ne moom la bëgg ba teg ko ci wetam ngir dale ci moom bu ko soxna si mere woon man naa fàtte li doon génn ci mbedd mi di dox fàtte moom mooy kan kilifa lu màgg màgg màgg xam nga dañuy wax naan jigéen du xam ñett yi maanaam mbaax wilaay borom këram jigéen du ko xam ak ak mbonuk doomam ak baaxug wujjam maanaam jigéen borom këram bi bi ko yàlla boole lu mu doon doon nitu yàlla moom du ko xam ndax moom xelam dafa gàtt te la mu séq ak moom rek foofa la koy xool te fekk ne loola jaamu yàlla la ci moom te day yokk ay martabaam waaye jigéen lu doomam bon bon bon bon bon du ndong mënuk doomam moo tax léegi sax li may wax jubbanti doomi jàmbor jafe jigéen lu wujjam baax baax baax du ko nongu man na koy nongu nag waaye am na fu ñu koy kiyee rek mën naa gis boppam maa ngi jéggulu yàlla suñ borom dafa maanaam dafa wax ne li taskunu ilayha maanaam jigéen ñi dañ leen a sàkk ginnaaw bu bu mu defee ay kéemaan jël nit sàkk ci doomu aadama ñu mujj ñun wëlbatiku di dalee ci doomu aadama boobu nga xam ne góor bu am bu demee liggéey am problème wala mu am ay jafe-jafe wala àdduna bépp wan ko ginnaaw bu amee soxna su bëgg soo xam ne soxna si mi ngi koy mi ngi koy jàppale di ko di ko di ko di ko dimbali day fàtte lépp moo tax ma ne woon nit ku xuloo yi bëgg lu mu jekk-jekk du ko gis waaye gis nga nit bu am bu ko suñ borom dénku dara ci wërsëg mu tumuranke ay waajuram jóge fi amut lenn lum àndal lu dul moom cundum bu amee soxna su nekk ci wetam tam bëgg soxna soosu lool ci xolam soxna si di ko jàppale maa lépp luy jafe-jafe mën na koo fàtte kon yéen jigéen ñi kon da ngeen di xam ne yàlla da leen a sàkk teg leen place bu kawe ci wetu góor ñi ginnaaw boo xamee ne góor gi moom it yàlla suñ borom da koo digal aw warte fu mag bu mu war a dox jigéen gi nga xam ne al umu madrasatul doom maanaam yaay mooy école bi njëkk ci doom te loolu jigéen ju baax moo koy moo koy doxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne addunya kulluha mataahun wa xayru mataahi dunya almaratu saalih nee na adduna lépp ay jumtukaay la waaye li gën ci jumtukaay àdduna mooy jigéen ju baax maanaam lépp loo gis ci àdduna rek matériel la buñ mën a jëfandikoo mu jariñ dara waaye soxna su baax dëgg bañ xam ne kii soxna su baax la nee na loolu lu ko gën ci àdduna amut moo tax kilifa kilifa yi ku ci am soxna su baax daanaka sa mission day gën a mat waaye am na soxna yoo xam ne saa su la suñ borom nattoo ñu mel noon rek lu baree bari day sooxe ndax liñ liñ war a lijjanti sa ginnaaw la yonte bi waxoon ne ñoom kat biir kër ga bu sëñ bi demee ñoom ñoo war a kër ga léeg am ñoo xam ne njaboot gi boo xësee dem seen yoon nekkatu ci kër gi defar ko seen yoon nekkatu ci am na ñoo xam ne ñeme nañoo ànd ak gan ñiñ gën a fonk jóge ca àll ba ñëw dugg seen biir kër ndax dañuy xam ne bu ñëwee léppay jàkk waaye am na ñoo xam ne fu ñu ànd ak gan guñ fonk dugg seen biir kër rek bu ñëwee danañ danañ am gàcca ngir melokaan wa ñu fekk kër ga seen doom fu ñu toll da ci am lu leen naqari soxna yit war nañoo góorlu bu baax ci di yamale jamono ji la sëñ bi di bëgg ak jamono ji nga xamee ne am nga ci kër gi fukki at ndax ñu bare bari bu leen sëñ bi di bëgg defaru gi ñu defaru ak fonk seen bopp di xeeñ lu neex di toppatoo sëñ bi di dab ay bànneexam ñu baree bari bu ñu xësee ñëw ba àgg fenn fi dañuy bàyyi ni ku bàyyi lépp te loolu it day sooxeel lu baree baree baree bari beneen bi mooy ahsanu naasi haqqan alal mar'ati zawjuha wa ahsanu naasi haqqan alal rajuli ummuhu ki gën a màgg ci nit ki bu dee góor la mooy waajuram wu jigéen waaye ki gën a màgg ci nit ki bu dee jigéen la mooy mooy borom këram kon loolu it soxna yu bari dangay gis jafe-jafe ju am bu am si sëy ñu ne lu ko waral ñu ne xariti soxna sa kat ñoom lay àndal di leen diglu luñ ko wax mu def ko bu ko borom kër bi digalee mu bañ kooku mu ngi def mooy yàlla gu rëy rëy maanaam bu la say waajur xasee jël ba jébbal sa borom kër sa waajur yooyu la jur sax sa borom kër moo gën a màgg ci yow sa waajur yooyu bu ñu la digaloon sa borom kër digal la ci loo ci loo xam ne du ak mooy yàlla da ngaa war a topp sa borom kër bàyyi sa waajur yooyu waxuma la ab xarit waxuma la bëgg-bëggu bopp léeg nga gis jigéen goo xam ne day nekk da maam ci ci ay ci ay mbiram. borom këram moom da koy yégal rek waaye du ko tàgg mukk benn mu bëgg la bëgg gu ëpp wala nga doon ko xaw a doy waar wala ngeen yàgg ba nga miin ko waaye loolu lépp day am lu mu lay yàqal jigéen gi fu mu toll war na di topp ndigalul borom këram ndax loolu moo koy may àjjana ndax yonent bi ne woon ayuma amratin matat wa sawjuha an radin daxalatil janna nee na jigéen gi saa soo xamee ne jóge na fi njëkk na fay jóge borom këram borom këram gërëm ko loo xam ne lu lu lu la nee na kooku kenn mënu koo tey dugg àjjana mu waxaat ne ayuma amratin xarajat min baytiha bi xayri ihni sawjiha kaanat fi suxtillahi taala hatta tarjaa ila baytiha nee na bépp jigéen bu mën a doon ci soxna yi ak kum mën a doon nag soxna su mën a doon génnewuñ ci kuñ kuñ jàpp ni dafa màgg wala kuñ jàpp ne dafa tuuti ñoom ñépp a ci am maanaam nee na saa soo xamee ne génn biir këram di dem te tëgguwut borom këram nee na jamono ji mi génn ba ni mu ñëwee ba ni mu ñëwaate ci kër gi na xam ne moom soxna soo si mu ngi dox ci merum yàlla ba keroog muy dellu si wala ba keroog borom këram di gërëm loo génnam góog gi kon loolu te te loolu yom yomb na ci soxna yi maanaam génn sa kër rek dem tàgguwoo sa borom kër ngir ne ah su ma ko tàggoo daal du ci wax dara waaye nag tàggu ko moo gën bu fekkee mën nga koo jot tàggu ko moo gën ndax loolu soo génnoon di dem di dox ci merum yàlla ba faatu dab la ci yoon wi képp ku faatu ci merum yàlla boo moytuwul su la yërmande suñ borom dabut man ngaa dem ci bërëb ba nga xam ne kenn bëggu faa dem ba tey mbokk yi ma ñëw ci hadis bi nga xam ne bu am solo la yonente bi salaa salaam dafa wax ci xaqi soxna ak boroom këram ne xaq xaq sawja ala sawjatiha an laa tamnahu nafsahu wa in kaana ala sani xatabin yonent bi salaa salaam nee na àq jigéen ak borom këram nee na bokk na ci sa borom kër bu la soxla woon ci ci ci ko nañ koy waxee ci diggante bu xat maanaam lum mu xat-xat donte dalaa soxla ci benn bant boo xam ne nii bant bu sew la mu bëgg la faa tëral maanaam jëfandikook yow na nga loolu te loolu sax dama ko jëlale waaye jigéen ñu bari buñ xawee amub coono tuuti rek duñ jege seen borom kër dañ koy daw wala ñu reseté ko wala ñu ñu doxale noo xam ne daal di wane ne tey jii daal baye boo ñu xaar ba ëllëg waaye tey jii damaa sonn te loolu day wàññi lu bare bare ci seen diggante waaye day wàññi lu bare bare ci njaboot gi fi ne fi góor ñoom danoo yor ay soxna maanaam góor damay wax ne lim bokk na ci li ko gën a neex mooy soxna su dégg ndigal bàyyi tere xam nga jigéen mën nga koo digal nii sax mu bañ a def waaye jublu ci naqaral la waaye soxna bu demee bay jublu naqaral boroom këram ci bañ a dégg bàyyi tere kooku moom moom moom sës sës na rek maanaam yonente bi nee na même bu la soxla woon ci corses corsestage yu xataxat maanaam ci ci ci diggante boo xam ne sonn nga wala daal tey ji amoo jot wala metti na lu mën a doon na nga ndax xàq la ju dox sa digganteek moom bis booba même soo ko dee def te amoo ci benn bànneex waaye coono jàpp na la wala am nga ci maam loo ci mën a na nga xam ne lala la ci suñ borom di dencal kenn xamul nu mu mu daan ne wa an laa tasooma yow man waaxidan ilaa bisni nii ilal faridata jigéen ñi war nañoo bàyyi xel bu baax di woor koor ngàtt nga lu dañ ci am seen digalul borom kër bu dee farata nag yàlla suñ borom moo moo moo digle koor yaa ayyuhal lazina amanu kutiba yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba alal lazina min qablikum laallakum tattaqun yéen ñi gëm yàlla farataaleef na ci yéen koor te yàlla lim digle kat laa taata li maxluqin fi max mahsiyatil xaaliqi li la yàlla digal mbindeef bu mu tax nga bàyyi ko bay mooy yàlla maam mbindeef bu mu tax ngay mooy yàlla sa borom li nga war a jaamu yàlla moo xam muy muy muy muy muy muy borom kër wala ku mën a doon bu la ko digalee te loola di luy mooy yàlla da nga bañ ndax yàlla mu ëpp doole ñëpp moo sàkk ñëpp waaye bu dee kooru ngàtt nga yii yonente bi salaa salaam nee na bu ko jigéen dee def na ci am ndigalul borom këram su fekkee ne danga koo def te amoo ci sa ndigalul borom kër nee na fa in faalat asimat wala mu taxabal bu fekkee da koo def te amu ci ndigalul borom këram nee na bàkkaaru na borom du ko nangu kon nit ki jigéen soxna si bu demee bay woor waaye nag lii may wax nii ci soxna si contraire la it ci góor gi góor gi it bis bu demee bay jël bis di ko woor borom këram maanaam soxnaam soxla ko te moom woor gi yàq tee ko joteeg soxnaam na xam ne loola ba mu koy def tëgguwu ci soxnaam kon moom it da ci am bàkkaar te yàlla du ko nangu kon jaam koorum ngàtt nga li muy baax baax koor li muy baax baax soo koy def war nga cee tàggu sa maam war nga cee déggoog sa soxna ba ëllëg suba mën na laa bañ a soxla wala mu muñal la bu la munta muñal nag bàyyi boo nga bañ a dugg ca koor ga ndax boo ko defee bakkaar nga ci am te yàlla du ko nangu mu ne wa an laa toxtiya miin bayti sayan illa bi isnihi nee na yéen mu bañ a joxe ci kër gi dara lu dul ndigalam lu baree bari ci soxna yi it boo xoolee góor ñu baree bari am na ci góor ñoo xam ne moom dañoo xaw a na ma yàlla jéggal maa ngi jéggalu yéen góor ñi waaye am na góor ñoo xam ne dañoo li wax ak dafa nekk ci ñoom ba leen a jigéen a jariñoo ci laaj daanaka xaw xaw a dee am na góor waaye am na góor ñoo xam ne dañuy tabe mboolem lu ñu jëfandikoo dañ koy jënd teg ci kër gi léeg-léeg nga gis jigéen goo xam ne it ma mën naa muy ak mbaax wala mu mu jàpp ni rek moom mooy moo mooy njiitu kër gi day jël ci loolu nga xam ne ci kër gi la nekk di ko joxe saa mu koy yëgal borom këram yonte bi salaa salaam nee loolu bu ko jigéen defee maanaam jël ci li nekk ci biir kër gi joxe ko te tëgguwoo ci sa borom kër te muy alalam moom ci moom borom kër bi aw yiw la ci moom waaye yow mi ko def bàkkaar la ci yow kon lépp looy joxe walla looy jëf ci lu baax na nga ci tàggu sa borom kër boo ko defee mu mu baax ci moom baax ci yow di aw jiwu matamat mu tegaat ca wa an laa taxruja min bayta illa bi isni nee na mu bañ a génn benn yoon lu dafa tàggu borom këram ndax kat comme ni ma ko waxee woon léegi soo génnee te tàgguwoo sa borom kër yaa ngi dox ci merum yàlla waaye fii mu wax ne bu ko defee fa in faala laxana allahu malaaykatul xadabi nee na yàlla suñu borom da koy móolu malaaka yi di ko móolu ba keroog muy dëppaat di ñëw ndax loolu mu def tooñ gu rëy rëy la mooy génn sa kër te tàggoowoo law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin amartul maratu an tasjuda li zawjiha nee na su fekkoon ne moom yonente bi nee na su fekkoon ne danaa digal kenn mu su jootal kenn kon jigéen lay wax mu su jootal borom këram kon borom kër soxna daa màgg ci moom boo xoolee nag li tax ñu gën a jël soxna yi soxna yi moom am na loo xam ne yàlla suñ borom moo leen ko defal mooy lu ñu woote bu dee am ndaje lu baax la ñoo fay ëpp bu ñuy laaj ab xaalis di ko jëme ci lu baax ñoo ci ñoo ci ñoo ciy gën a jàmbaare te it bëgg nañ lu baax moo tax lii ñuy wax dañ koy wax ngir gën leen a soññ xëy na léeg nit àgg foo xam ne du gis fenn fu muy soññee koo man mii ndeysaan am na bis ma toog fii ci kër gi ba mu yàgg soxna si ñëw di seet sëriñ bi fekk ma ma toog noonu ci daara ji mu ñëw daan ne ma benn benn benn soxna soxna mën nañu yaay ku ku baax ne ma sëñ bi dama bëgg nga dénk ma kooku li tax mu ñëw daal ne damaa bëgg nga dénk ma maanaam xëy na àgg na foo xam ne ci mag wala mu nekk ci bërëb yoo xam ne amul kenn ku muy dénk ku koy wax te xëy na mi ngi def ay njuumte te ko xëy na maanaam mi ngi def loo xam ne ni neexut yàlla neexut yonante bi wala warut mu mu mu bëgg koo bàyyi moo tax comme gis am yaakaar ceew mu ne la dénk ma maanaam dénk ma nga dénk ko digal ko lu baax tere ko lu bon mu jariñu ca loolu rek lañ jublu ci lii waaye léeg wax booy booy wax ci wax joo xam ne yàlla da koo wax yonent bi sallallahu alayhi wax ko mën naa xaw a diis waaye lu diis diis la ci ëpp solo mooy li yàlla waxoon ne bu ñu bu bu ngeen bu ngeen déggee ay wax na ngeen jël la gën a rafet ngeen jëfandikoo ko te la gën a ñaaw ngeen bàyyi ko te di ko moytu ba tey góor gi saa soo xamee ne borom waaye wabil walidayni ihsaanan nee na sa yaari waajur na nga rafetal jëme ci ñoom xam imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma nee na dagal kibara nee na bu fekkee ne ñoom kenn ci ñoom dafa dem ba nekk mag maanaam nga xam ne say waajur nekk nga ak ñoom dund juddu nga am sensu dund ak say waajur xam nga ñu bari dañuy judd fekk seeni waajur làqu am ñoo xam ne dañuy am yéene yi toppatoo seeni waajur defal leen lu rëy far ñu làqu waaye loolu mën nga ko faj ci jamono ji mi dund ak bi mu fi jógee bu fi jógee del dëkkee baax di ko isaa maatam nu aadama inqataa amalu ila min salaasin yonente bi ne woon na nit ki bu fi jógee ay jëfam yëpp day dog ba mu des ñett sadaqatin jaariya sadaqatin jaariya mooy lu mel ne lii nga xam ne am na fii comme jumaa ji nga xam ne maanaam tabax tabax nañ ko fi jàkk ji ñu ciy julli mbaar mi ñu fiy def lu baax képp koo xam ne biñ ko fi def sa alal dugg na ci lépp luñ fi wax ci lu baax bu fekkee ku jiitu nga yiw wi dala fay fekk waaye sada loolu mooy sadaqatin jaariya mooy sarax buy daw wala ay forage wala lu mën a doon waaye ginnaaw loolu it doom ju baax ju lay ñaanal kon doom maanaam bu fekkee ne say waajur jóge nañ fi man ngaa dabu ci di leen defal lu baax ñu koy gis moo tax yàlla ne imaa yablu xanaa ay dagal kebar ahaduma aw kilahuma bu fekkee ne kenn dafa nekk ci ñoom mag wala mu dem ba màggat ci ci ñoom maanaam nga nekk ak ñoom fala taqulhuma uffin wala tanharhuma bu leen di naan maam ñu wax nga naa leen waay xam waay wala nga leen di gëdd nee na loolu bàkkaar bu rëy ngoog te loolu dafa yomb léegi ci gone yi gone yi léegi da gis gone goo xam ne waajuram da koy digal mu naan ah paa bi daa bari wax mère bi daa bari wax walla ñuy gëdd seeni waajur li gën a doy waar nag mooy jàkkaarloog sa waajur mi wax nga gëdd ko daat koy daat koy daat ne ko uffin wala tanharhuma yàlla ne waxul lahuma xawlan karima yàlla nee na del wax ak ñoom wax ju tey wax ju tëdd ndax maanaam jamono ji nga xamee ne maanaam nekk nga ndaw ñoom ñoo la jël teete la yar la ba nga màgg ba nga toll ni nga toll kon booy wax ñoom del wax ak ñoom ci wax ju teey wax ju dal wax ju am yiw te di leen ñaanal te bañ nee na maanaam wax lépp loo xam ne da leen di merloo wala lu leen di xàddiloo kon loolu it ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko xel baax a baax yonent bi neewoon na laa yaj si waladu walidan ila an yajidoo mamlukan fa yastariyoo fa yuxtiqoo neewoon na maanaam doom munta fay waajur mukk lu dul da ko fekk mu nekk ci ak njaam jamono yi jaam di am nga xam ne jaam ni mu mettee dañ lay jënd takk buum ci sa baat di la wërale dëkk ak dëkk yéeg ci ay fas nga nekk ci désert bi di dox ñu lay jaay ak di la toroxal lépp lu ñu def ci lu metti yaa koy def nee na waajur mun ta fay doomam lu dul dafa fekk ay waajur doom mun ta fay waajur lu da fekk ay waajuram nekk ci ak njaam mu jënd leen goreel leen kon loolu bu dee jamonoy tey jii mooy yow bu la yàlla mayee xéewal del toppatoo say waajur di leen may alal di leen defar lu baax ta bañ leen di gëdd bañ leen di wax wax ju ñaaw comme ni ko ñenn ñi defe léegi nga xam ne ñu baree bari respecté duñ seeni waajur kon maa ngi taxawandi foofu ndax yonente bi ne woon ittaq ittaq ittaqullaha wahdiloo bayna awlaadikum ragal leen yàlla ci seeni doom waaw seen doom yi ngeen jur maa la yilif rek lu ma neex def loolu it na ko waajur yi di bàyyi xel bu baax a baax waaw te bañ leen a xaajale loolu it lu am solo la kon maa ngi jéglu bu baax di wax ne xëy na temps bi moo xaw xat waaye benn thème bu nekk rek liñ ci bëggoon a indi euh, bari na lool waaye euh, li ma wax léegi suñ baay badam yi day suñ waajur di suñ di suñ moo ne waay bu ma mënoon wax waajur dana xaritoog doom it di suñ xarit di suñ lépp di koo xam ne maanaam munuñ ko munuñ ko munuñ koo fay ndax daal day nit ku baax dama koy dama koy faral di wax fee ca suñ kër ga jamono yi mi gën a am jot di fa di fa ñëw maanaam sëñ Baye Bada képp koo tudd rek li ma yéem ci moom mooy képp koo tudd dana jéem a xool nu muy waxee ci moom ak mbaax maanaam maanaam nga xam ne nii diggante euh, bay bàyyi sëñ Mbàkke Jóob mii sëñ Saddeex bàyyi sëriñ bàyyi bàyyi Alaaji sëriñ Géey sëñ Aato maanaam képp koo tudd rek sëñ ba suñ waajuree sëñ Fallu sëñ Baabara dana wax ci yow lu baax loo xam ne kéemaan lay doon te noonu la koy defee ba tey jii te loolu mooy ak mbaax mooy fu ñu tudde nit nga wax ci moom lu baax am na ñoo xam ne léegi jataay yi dafa soppeeku fu ñu tudde nit daanaka ab safaan la ñuy wax ci moom am na ñoo xam ne sax dañu xool kilifa yu baax yi seen ayib yi leen yi nga xam ne moom lañ def moom la ñu jéem a waxtaane ak naan dañ koy kaa nga xam ne léegi bu kilifa juumee sax ba def dara maanaam day mel na ñoom dañuy am programme dañuy dañuy toog ci jataay di ko waxtaanee naan naan dañuy kaa kilifa gi naan kilifa sàngam moo def nangam te xamuñ ne nit lu doon doon ab sëriñ lu mu doon doon kilifa nit rek la te nit day juum waaye li gën a am solo mooy kullu banni aadama kullu banni aadama xataan wa xayru xataayu dunya maanaam ki nga xam ne maam yoon bi nee na bépp doomu aadama day juum waaye li gën a am solo mooy boo juumee nga tuub ndax boo tuubee yàlla jéggal la jamono yi da ngay gis koo xam ne kilifa goo xam ne ba muy am fukki at la defoon benn njuumte am ñoo xam dañ cay topp ba léegi di wax fuñ toll di ko di ko di ko di ko kawti kawte ñooñu bàkkaar bu rëy mi ngi leen di topp te ko waaye ñi nga xam ne dañoo doon ay nit ñu baax rafeti ji ko fuñ tudde nit rek ñu wax ci moom lu baax ñooñu lu baax loolu ñuy wax ci moom ñëpp ñuy wax ci kooku lépp ci ñoom la nekk moom mi nag daa bokk ci ñooñu di nuyu di di siyaare it sëriñ eh, bàcc mi di suñ kilifa di suñ waajur moom it di ku baax moom it waaw moom it fu ne ngay dégg am mbaaxam waaw di ko ñaanal suñ borom guddal fanam te may ko wér waaw ta nee na tabe loole ndeysaan daje naa moom fii ñaari yoon ci suñ mbàkke bajaan waaye mooy ku baax lool ndeysaan di ko ñaanal baax suñ borom guddal fanam te ko wér isaari suñ El toog moom it di ko bëgg lu baax lool damay wax ne saa su la envoyé message rek lu baax la lay wax ak suñ baay bee suñ moo suñ Modou Gueye ñoom ak ñu gaa yu baax yépp ñu ngi leen siyaar suñ baay meng ñu ngi jégalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah suñ Mortala ñu leen siyaar baax aleykum salaam wa rahmatullah dajeeg suñu borom tey ak ëllëg yaa ngi leen di ñaanal ngeen gudd fan lool lool ca wér ca lépp ñu jeexal ko ci euh, jaamu yàlla ak liggéey suñ Tuubaa yàlla may njaboot bu barkeel ji bi jaay xaadimu rasul ndax ndaje mu mel nii lu tax ñi ko doon taamu dañoo wax ne képp koo xaye am nga gisu basar booy dem ci xewu mel nii malaaka yi ñu ngi leen di lalal seeni laaf naa lala naa leen ni jigéen ñi di lalale ab seet bu demee solo ji ba ñëw kon nag ah, wàcc leen nooti des waaye dañ leen di booleeg suñu borom nag mi nga xaye du jeex dara ak borom Tuubaa ak barke borom kër gi di sëñ Mbàkkeem Jóob murit saadax bëgg sëñ Tuubaa kennal ko ca ko booleeg dara kër gi nag li tax ma am fi wàccuwaay fi laa jànge alxuraan kon moo tax dama koy fonk dama koy fonk kon nag ñoo ngi ñaan rek barke bi gën di wàcc rek ci barke sëñ Tuubaa ma ñëw ci li nga doon wax léegi ci góor ñi nga dañ lay laaj nga giñ waat ne yoruma dara dafa amoon sama benn xarit boo xam ne soxna si daa xëy laaj dàpp parce que mu ne ko ah booy boo lebi rek man ne yoruma dara mu wax wax mu ne ko yoruma dara fa muy sole muma xalpe ba waaye yëgu ko mu dem soxna si for ko xool ko fekk ci ñaar fukki junni mu daal di koy ron denc ko ba mu demee ba ñëw di di di di xiin xiin di yër lool la di fu ne mu di xool soxna si ne ko looy seet mu ne ko daa am lu ma rob la mu ne ah baax na wër wër ba yàgg mu ne ko ah, neexu neexu de sama ñaar fukki junni moo soxna si génnee ko ne ko mi nii mu ne ko jëloo ci dara kon mu ne ko ah nga ne woon ma dara ma for ko ah xaw ma yaa moom xaw ma dañ laa dénk waaye daal sa xaalis a ngi nii loolu day faral di am te loolu yàlla da ko bañ ndax li ko dëkkalaltaay mooy aw fen la yor dara ba noppi ne yoruma dara aw fen la te fen dafa araam kon yooyu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax euh, soxna yi ma ñëw ci yéen euh, euh, yéen lépp yéena lépp yéena ndax lislaam boo amul woon jigéen du baax xare Badar jigéen ñi dañ doon jël ndox di góor ñi am na ci jigéen ñu doon xeex sax ba am na ndaw si ci faatu te ndigum sëñ tubaab bi noonu ngeen ci mel fu leen wooyee lu baax ngeen wuy si waaye na ngeen fedd li seen laxasaay lii sëñ Seex wax góor-góorlu ci seen borom bi kër képp ku sa borom kër gërëm yowmal xiyaam da danga dem àjjana àdduna nag bànneex ak naqar rek ñoo fi jëlante mi ngi mel ne naaja ak ker rek waaw kon da ngeen di góor lépp lu leen naqari na ngeen ko muñ te yàlla tax di góor góorgóorlu di dimbali seeni borom kër di yaru xale yi di leen teg siraatal mustaqim ndax lépp yéen ngeen di roy ci soxna jaara ak soxna Aminta Lo ak soxna Mama Awa Bousso ak soxna Fat Jaxate ak soxna Mariama Jaxate ak mboolem soxna yi nga xëy ñoo jur ëtt diine yi lislaam yu baax yu yaatu yii ndax yéen ñu ci bari góor goo gis ñu di ko woo di ko dàkkantal ci ndeyam fokk mu doon xalifa dana doon xalif général mbaa mu doon xalifa kër baayam mbaa askan wa mu bokk kenn du ko ci gën a kawe te faw bu amee njoboot njoboot ga dana barkeel moo tax cër boobu leen yàlla jox na leen ko fonk bu baax ndax dangay geesu ne sëñ Moustapha Aminta Doo Basiiru Faatuma du maam Baara Aminta Doo Fàll Awa Buso sëñ Mbàkke Soxna Doo sëñ Seex Mati Lay Mbàkke noonu nga koy toppe sëñ Moodu Aminta Faal sëñ Seex Awa Balla sëñ Seex Awa Balla sëñ Ibra sëñ Ibra maami sëñ Bàcc me sëñ Ibra Kumba Sil ndeyam lañ ko dàkkante la gis nga ko cër bi maam li mu tagg sëñ Tuubaa ci araab kenn bu ko ko ay doomam baax lool kon nag yéen na ngeen fexe ba dàkkante loowu it ku ko ci amul sa doom it mu fekk leen seen bàmmeel ndaje mi li muy rëy rëy yéen a ma ci gën a ñor moo tax wuy si ngeen nag waaye samaatam wa taatan lii sëñ Seex wax ne ngeen ko dégg ca topp ko ndax boo bëggee doom ju baax bëgg a dugg àjjana da ngay topp sa borom kër ci la neex yàlla ngeen ànd di jaamu yàlla daam ku ñëwoon sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg doom ju baax mu ne ko soo demee na nga jël soxna su baax su am diine ngeen bokk di jaamu yàlla su ngeen ci amee doom bu ko yàlla dogalee mën naa baax dégg nga waxi sëñ Tuubaa bu ko yàlla dogalee mën naa baax kon ne neen ci bàyyi xel baax ñun góor ñi it ñu góorgóorlu ci di yërëm soxna yi ndax seen tubaab bi mu jóge Jolof dafa wax ne déglu leen ma dénk leen ne buñ jógee fii bu leen def lu leen neex def bu leen def lu leen neex wax bu leen def lu leen neex lekk bu leen def lu leen neex naan daa dina soxna yi nag laa leen bëgg a dénk ñu ne ko ah Mbàkke nu ngi lay déglu mu ne dañ lay tooñ ba ñëpp jëkk laa mer duñ la gërëm duñ la yërëm ñoo ne ko kon nu ñuy def mu ne da ngeen leen di da ngeen di jël safaan ba da ngeen leen di yërëm te di leen dimbali te di leen suturaal ndax ku ci matoon kat ku ci matoon kat duñ la muur guddi di la joxe ndax seeni càmm ñi nga fa ci joxuñu leen ko kon nag bëgg ku leen yor te yërëm leen moo tax ñu jox leen ko nawet nañ na ngeen xam ne soxna yi duñ seeni jaam seen moroomi nawle lañu yoo xam yàlla da leen a boole jaarale ci yéenu sëy kon nag bu ngeen demee na ngeen góorgóorlu di leen yërëm di leen dimbali kon nag loolu it nun góor ñi ko bàyyi xel gone yi na topp seeni wayjur ndax mag ñi ñu fi lim muy sëñ Ibrahima Kumba si lim yi ñu toog ci ëttam nanga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci ne dangaa toppoon say wayjur bu la nee jàngal barab saa nga jàng ñu ci njëtt ne seeni wayjur ñoo leen yabal ci Sëñ Tuubaa waaye am sa wayjur bu la digalee doo def bu la dee dee dara bàyyi loolu ku bëgg barke doo ko def na ngeen fexe ba làq seen ngërëmal ñaari wayjur rawatina nag àq jigéen seen yaay ndax seen yaay bi mu leen ëmbee bu faatu du ngeen judd te bu seen baay faatoo ngeen judd kon na ngeen yërëm seen yaay te di leen dimbali te di leen jox wàccuwaay jox leen seen àq ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na sa ñaari wayjur bu ñu faatoo booy ñaan na nga jëkkee sa na sa ndey ndax moo ëpp àq ci yow doog cee teg sa baay waaye alal yi bi badar dadaa wax na bada ma ne ko mbàkke mu ne ma barke ak bayre baay àjjana ndey barke ak barke baay ree àjjana ndey kon nag loolu it nañ koy sàmm bu baax nu góorgóorlu bu baax nun ñëpp nañu yërëmante di dimbilante ci suturaalante ku ci xam kenn ku ne na nga doon ambassade kenn ku ne nanga doon ambassade sa morom fa nga toog fépp foo toog ki nga xamee ki nga dëkkee bu ñu bëggee wax ci moom lu dul loolu xam nga noo koy wax danga koy wax loolu man xawma ko ci moom boo xee wax ju siyaara na ko ah, man na loolu xawma ko ci moom dootu dem waaye bu leen dimbali kuy xas seen moromum jaam kuy jëw seen moromum jaam ku koy xeeb nun ñëpp nañ maase ci bañ koo def kenn ku nen ne defe ne sa moroom la gën ndax bari na ko di xeeb ca moo la gën fopp fa yàlla bari na koy xeeb ndax col ga walla ñàkk ga te moo la gën fa yàlla ndax dalaa gën a ragal yàlla moo tax te ku la gën a ragal yàlla moo la gën nañuy digal njaboot bi jub di leen digal ñuy def lu baax di wax lu baax ngeen nekk ca nag ñu di leen gis ndax loolu mooy li am solo lu ko mooy di ngeen layow ñoom yomal xiyaam ci boobaa daañu leen yey noo ngi siyaare sëñ seex Bàcc mu jàll leen ko ci sëñ sëñ Cheikh Bay laa di njee siyaare njaboot gépp noo ngi ñi yeew yi ñëpp yal nañ ko teewe na nga di déwén ca kenn bañ a manqué képp ku tawatoon yal na nga wér ku ñàkkoon yal na nga am ku amoon tuut yal na bari ku bari la woon yal na gën a bari sëñ Cheikh Bàcc nag dama ne ko yow man milliard rek laa la yéene milliard milliard bu dandu rek beneen ñëw waaw ab tab moom loolu nga koy ñaanal ndax ndax ndax alxuraan ñaanal na ñi ñuy joxe ñu yàgg fi waaw kon nag ñu ngi lay ñaanal bu baax Jóob suñu borom gën la fee yàggal yaag say doomi baay yàlla aaral la njaboot gi barkeel leen aaral la soxna yi barkeel leen ku fi teew yàlla na la yàlla jéggal say bàkkaar yu jëkk ak yu mujj di ñaanal ñëpp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 والقلم وما يسر